إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi maam sant yàlla subhanahu wa taala di ko dimbale ko di ko ñaane mu jéggal suñuy bakkaar di ko ñaanal yàlla mu gindi ñu tegu ci yoonu jub bi mu yoonu siraatal mustaqim yoon bi nga xamante ni képp ku ci yàlla baax nga tegu ci moom jafe na waaye képp ku yàlla seetaan ci maanaam téemi nga ko wàcc benn leer woon kenn na mun laa jubalaat wax yàlla billah ñu ngi seen ne bur boobu day manul kenn ku koy jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te ñeer ñu koy bokkaale kenn moom ñu jurul kenn te kenn juru ko moom yàlla bi nekkul na ci kenn ñuy seetal suñu sama Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaam la ndaw ba tey defal la yàlla ñu yàlla may ak saxaabaam ak képp ku topp jubóom bi rafet rek boo ko rabbi subhanahu wa taala ñu ngi suufam mbokk yi ñu dégg suñu bopp leen leen ragal yàlla ñu ñu ko dégg ci aaya bi mu ne ay yéen gaa yi comme da ngeen ma ragal dëgg dëgg ragal rek bu leen faatu lu dul da ngeen woomatu doon jullit mbokk yi suñu xutba tey bismillah ñu ko fas yéene amal ci al istighfar mooy jébbalu jébbalu ci borom bi subhanahu wa taala ci tooñ yoo xamante ni jàmm bi mu ngi koy ko koy tooñ jàmm bi dina tooñ boppam mooy li yàlla def ne wa maa zalamuna walakin kaanu anfusahum yadlimun tooñ ma de ci ñàkk a def yi ñàkk a def li ma leen digal ñu jaamu waaye seen bopp la ñuy tooñ ndax wàññi bi sama nguur gi dara tooñ bi jàmm di tooñ moroom jullitam wala moroom doomu aadama bokkul ba tey ak tooñ bi nga xamante ni jaay moom dina koy tooñ borom mooy mu jël cëru yàlla def ko keneen moo tax yàlla wax ni inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla mu ne na jégale bàkkaar bu mu mën a doon waaye bàkkaar bokkaale moom ku ko jéggal ndax mooy jël cëram moom jox ko keneen pour moom ko yeewu mbokk yi fii maam Adama alayhi salaam mooy ki njëkk a tooñ boromam subhanahu wa taala ci mbindeef yàlla da koo defal teraanga moom ak suñu maam Xawa dugal leen biir aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna la ko yàlla wax duggal yow ak sa soxna biir aljanna te kula minha ragadan aytu shittuma lu leen neex lekk leen lu leen neex dundee leen benn tere donc donc donc la yàlla tere woon suñu maam aadama ak Hawa mooy wala taqraba hadihi shajara fatakuna min al-zalimin bu leen laal garab gi moo tax tool bi ñu koy ko dañoo laal garab ga biñ ko laalee yàlla li mu digal aadama alayhi salaam mooy da koo sa ay baat fatalaqa aadama min rabbihi kalimat baat yi ko sa mooy baat jébbal mu jébbal yàlla mu ne ba ma jéggal ko rek fa taaba alayhi fasaasa laa ko jéggal ndax innahu huwa tawwaabu rahim ndax yàlla mooy jéggalaa kon bi mu rab yërmaande bi yàlla mu jéggaloon suñu maam aadama ci tooñ boobu nga tooñ ba tax mu wàccee biir ci kaw suuf noonu la yàlla tëddee buntu tuub ci bépp jaam moo tax yàlla wax ne qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jamian innahu huwa alghafuru rahim mu ngi waxal yow Muhammad alayhi salaam sama jàmm ñu ne ñi nga foog yaakaar nañ ni ñi foog yaakaar nañ ni bàkkaar yi ñu toggoo du ma leen ko mës a jéggal xamal leen ne leen nag yàlla borom yërmaande yaatu la bépp bàkkaar lay jéggal ndax moom yàlla mu ne moom mooy al-Ghafuur mooy kiy jéggal jéggal ak moom ar-Rahiim mooy borom yërmaande bi yërmaande loolu la waxaate moom yàlla subhaanahu wa taala ci suuratul Hijr mu ne nabbi ibaadi yow ma xamal ibaara sama jàmm anni ana al-Ghafuur ni man mii man yàlla maay kiy jéggale ar-Rahiim maay tamit kiy yërëm jàmm wante nag àndal loolu tëjee ko ni wa anna adabi huwa al-azabul alim sama mbugal nag nañ xam ni mbugal mu tànn yàlla ci yàlla mën a musal mbokk yi jéggul ba tey yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci xadiisu abi dharr radiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wa sallam fima rawa an ibrahim tabaraka wa taala annahu qaal lii la yàlla wax yonente bi alayhi salaam di ko yaa ibaadi yéen samay jàmm innakum tuxtiuuna billayli wannahaar wa ana axfiru dunuba jamian fastaxfiruuni axfiru lakum yàlla mu ngi xamle ni ay yéen sama jàmm yéen dem ay defkati bàkkaar ngeen yàlla mu ñu bind moom gën a xam alaa yaalam man xalaq mu ne bàkkaar yi ngeen di def yii ci gudd la yii ci bët bëccëg yëpp dañ koy def di ko toggoo xam leen ni wa ana aghfiru dunuba jami'an képp ku wëlbatiku waat ñëw ci man tuub jéggal ma bàkkaar yi nga def moo xam guddi la wala bëccëg la man yàlla dina la jéggal mu ne fan fastaghfiruuni nañu gaaw kon bu ñu defee bàkkaar ak tuub delluwaat seen borom aghfiru lakum bu ko defee man yàlla jéggal noonu la alayhi salaatu wa salaam waxaatee ba tey ci laftu Ahmad mun yaa ibaadi kullukum mazluumun illa man aafaytu illa man aafaytu mu ni ñëpp jàmm ñëpp dañuy def bàkkaar mooy koo xam ama seen mu ni fastaghfiruuni aghfir lakum kon na ngeen ma jéggul ma jéggal leen wa man amil wa man alima minkum anni du qudratin ala al-maghfira fastaghfiruuni bi qudrati أغفرت لكم ولا أبالي moom yàlla ba tey muy waxaat ci xadisu xutsu yi mu ne yéen sama jàmm de yéen ñëpp ay tooñkat bi ay defkatu bàkkaar ngeen bu dul koo xamante man yàlla maa ko sàmm ci loolu kon la ngeen jéggal ko jéggal leen ci képp koo xamante ni xam na ni man sama daw sama kàttan am naa kàttanu jéggale bàkkaar yi mu gëm ko ba ñëw taxaw jéggalu ma man yàlla dinaa ko jéggal ay bàkkaaram moom set wecc te loolu sax du dara ci man mbokk yi boo demee ba tey ci jéggalu ci xadisu anas ibnu malik nee na jéggalu yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne qaala allahu tabaraka wa taala yabna aadam yow doomu aadama mu ni bàkkaar boo xamante ni def nga ko nga jàpp ni bàkkaar bii de kenn du la ko jéggal nga ñëw jéggalu ma ko man dinaa la ko jéggal te du wàññi dara ci man te loolu du dara ci man mu ni wat yab na aadama law balagta dunubaka banaana samaai summa stafartani xafartu laka wala ubaali mu ni boo defoon bàkkaar yoo xamante ni dafa toll ni fii ba ci kaw asamaan sax cay bàkkaar nga jéggalu ma dama la koy jéggal ba loolu du dara ci man mu ni tamit naka noonu boo ma dikkalee yawmal qiyaamati fees dell ki bàkkaar te ci bàkkaar yooyu nga def gisuma ci benn boo ma bokkaale mën naa la jéggal say bàkkaar kon yàlla mooy bi nga xamante ne mooy kiy jéggale bàkkaar yàlla yàlla jéggal si bàkkaar moo tax yàlla ci wàllum njëkkalante fii ci àdduna taxawul di wax njëkkalante leen ci alal njëkkalante leen ci ci ci njaboot njëkkalante leen ci yenn yi ak waaye njëkkalante bi mu ko wax daf ni wasaariya ila magfirati min rabbikum na ngeen njëkkalante ci jéggalu seen borom ndax jéggalu kuy dund soxla na ko waaye ku faatu it soxla na ko mbokk yi noonu la borom bi subhanahu wa taala waxaate ba tey ci jéggalu mu ni قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين يلا في الله سبحانه وتعالى وحتى يا محمد صلى الله عليه وسلم وحل ni man mii de mbindeef laa rek ni yéen waxal nit ñi ne leen yow mbindeef bi ne ñoom li la muutale ak ñoom mooy dañ laa say wax dañ laa wax yu te liñ la wax yu mooy nga xamal leen ni moom yàlla de kenn la koo xamante ne moom rek moo yor jaam ilaahu waahid fastaqiimu mooy da ngeen nekk na ci yoon lim leen digal def ndigalam bàyyi tere waaye képp koo xamante ne juum na muy ci yoon bi juum defi bàkkaar wastagfiruhu mu jéggalu yàlla dina ko jéggal ay bàkkaaram waaye képp koo xamante ne nag moom nuur na ci bàkkaar ba boole ci di bokkaal yàlla yàlla mu wa waylun xurwate sawara de ñeel na ñi nga xamante ni lil mushrikina mooy ñiy bokkaale yàlla wa amara allahu nabiyahu bil istixfaar fa qaala yàlla noonu digal yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ko ni wa astaghfirullah wa astaghfirullah inna allaha kaana gafuran rahima yàlla yonent bi alayhi salatu wasalaam mi mu jéggal ay bàkkaaram maa taqaddama min danbi ko maa taaxar moom la joxe ni ko na nga jéggalu say bàkkaar inna allaha kaana gafuuran rahima yàlla ni loolu buur bi jéggale la buur boo xamante ne la bu bëri yërmaande noonu la abdullah ibnu amar radiallahu anhu mu ni moom abdullah kaana yabudu li rasul sallallahu alayhi wa sallam fi lmajlis wahid miata marra min qabli an yaquuma nee na daana wax nga yonente bi alayhi salatu wasalaam ci jataay yonente bi toog ci jataay nee na mu koy dégg muy wax astaghfirullah astaghfirullah saa yu demee ba ci jàgg rek mu tuddal baat astaghfirullah mu koy wàññi ba mu toll ci cent astaghfirullah lam ci nam ci mi ak ñu wax ni nekkul ni boobu ngaa toog yor sa groupe nga def astaghfirullah cent fois daa cay yem waaye lañ ca nam moom mooy nga bari lu koy wax astaghfirullah mbokk yi ndegam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi yàlla jéggate bakkaar yépp mooy toog di jéggalu ba ñu koy wan ni ñe ak astaghfirullah asamaan ni ñi nga xamante ni xamuñu suñu masir moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiis abi hurayra radiallahu anhu mu ne walladi nafsi bi yadi maa ngi gën ci ki nga xamante ni sama bakkan bii moo ko yor muy yàlla mu ni law lam tudnibu bu fekkoonte ni yéen ñii di doomu aadama yi yàlla doon kaw suuf du ngeen di def ay njuumte yàlla dana leen fi jële indi fi ñoo xamante ne dañuy juum di jéggal kon juum moom mënul jàppee si doomu aadama bi nga xamante ni ci matateem ci matadi la ko yàlla indi waaye saa boo juumee na nga wëlbatikuwaat nga tuub jéggalu sa borom subhanahu wa taala mu jéggal la say bàkkaar aqul ma tasna'un astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaatee yàlla subhanahu wa taala di julli di sëlma ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom mi nga xamante ne yàlla wàccee waat beneen yonent ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam mooy wax ci xadis bi ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu ni man lazima al istigfaara jaala allahu lahu min kulli daybin maxraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min xaytu la yaxtasib yonent bi alayhi salaatu wa salaam mi ngi wax ci xadis bi ci ngëneelu di tuub di dellu ci yàlla mbokk yi lii di bàkkaar dafay diisal jàmm ci jëm ci jaamu yàlla saa yu la ay jaamu yàlla diisee ci yow rek yow dawal làmp boo ci astaghfirullah tuub dellu ci sa borom astaghfirullah mooy ab rujuu wal inaaba mooy tuub delluwaat ci yàlla bi nga xamante ni moom mooy kii jéggal jéggal loolu saa yu jàmm diisee ci moom ci muy def jaamu yàlla yépp mu diis ci moom na taxoo di jéggalu borom ci astaghfirullah bu ko defee yàlla woyofal ko jéggal ay bakkaaram ngir mu mën a jóob li nga xamante ni mooy li tax yàlla wàcc ci kaw suuf moo tax ci xadis bi yonente bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne képp koo xamante ni daf koo na astafirullah jaala allahu lahu min kulli dayqin maxraja yàlla dina la defal ci bépp xat-xat boo nekk yàlla dina la ci génne wa min kulli hammin faraja mooy saay boo amee bopp bu tëj yàlla dina la tegg yooyu leen jàppale ci sa bopp wa razaqahu min xaytu laa yaxtasib te yàlla dana tëjee say buntu wërsëg defalal la ay xéwal yoo xamante ni fa muy ñëwee ci yow sa doo ko fa foogee donc yi noonu la moo ko waxoon ñi yàlla leen ñi mu yàlla ñi ko yàlla yoon noonu si ñoom mooy xeetam mu ni leen fa qul istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara jéggalu leen seen borom ndax moom da jéggalaat woon te bu leen jéggalee yii njariñ mooy topp ci jéggal bi leen jéggal mooy yursili sama aleykum bidrara dina wàccee ci asamaan si taw ngeen am nawet bu barkeel yàlla ci yàlla defal ak istigfaar say loo defee ba lii di nawet bi ñu toll nii ñu naan ah taw bi yem na rek taw bi yem na rek nañu delluwaat rek di tuub delluwaat suñu borom yàlla dina ci wàccee taw ci astafirullah bi nga xamante ni jàmm ñu koy wax moo tax nag yursili sama aleykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin astafirullah ki nga xamante ni sax dafa tëju ci wàllu njaboot ku ne ma ciy daw di fañ astafirullah yàlla mën na ko cee tijji ba mu am bu koy bu ko bu ñàkkal njaboot yàlla dina ko defal lii di njaboot ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا yàlla dina ci defal xéewal aljana yoo suuf mooy soxla soo am mu faj soxla soo am mu faj loolu weesu aljana ci yoo suuf kon astafirullah ci aaya bi wala soo araam bi bari na ay ngëm yoo xamante ni dina ko def ci jàmm wal istixfaaru sababun fi ziyadati al aqli wal iman lii di wax astafirullah di ko dund mooy la nga tuub ni astaghfirullah mooy ne da ngaa rëcc ni bàkkaar bi ma defoon dootuma ko defaat mooy tawbatan nasuha loolu dafay nekk sabab ci yëkkatiwaat jàmm bi ci imaanam ci gëm yàlla ba lam defoon dootu ko defaat day mu ngi am kersa ci kanam borom moo tax lii di astaxfirullah ba tey dafay tekki njàmtaay ci jàmm bi comme ni ñu ko waxee ci xadis bi léegi waaye daf koy tekki tamit bopp bu tëju te astaxfirullah du yom rek ci jàmm bi ni mu koy defal ci ay fawaayit waaye astaxfirullah dina jariñ ci ku koy wax ba jariñ société bi mu nekkal ndax wa ma kaana allahu muaddibuhum wa hum yastaghfiruun bëri na ay gox yoo xamante ni la fa nekk ci ay ay mbir yu métti yu tar ñu koy dund te yàlla wàcceewul ci ñoom mbugal ña fa nekk di tuub di jégalu yàlla yàlla rus ba wàcceewul mbugal ci ñoom kon jàmm bi tuub gi muy tuub di delluwaat ci boroomam li mu koy jural bu yem nangu ay xéwal yem ci moom waaye dina ko jural tamit ci ñi nga xamante ni ñooy nekk ci li ko wër mooy société bi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك السبيل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صراط رحمكم الله